tey dañu ñëw si liñ ñu leen diggoon si saison 3 bi toujours waxtaan ak yéen si émission benn feebar boo xamante ni tawat bu doy waar la nag euh, boo xamante ni euh, day jur fitna ndax tawat boo xamante ni dafay yokk stress dafay indi anxiété dafay tax nit ki dem bay am dépression kon maanaam xel mu jaxasoo kon tawat doy waar la. mu am tawat bu mu xaw a nural nag bu ñuy junjoon temps yële passé muy la rectocolite hémorragique tey dañ ñëw si malade de Crohn malade de Crohn ak rectocolite hémorragique dafa bari lu ñu bokk ba dañ leen di jaawale ndax nekk na tawat wax dañ leen di jaawale d'abord ñoom ñëpp ak jàngoro kajoor muy hémorroïde ndax bu la dalee di ngay am lu ñuy wax biir buy daw boo xam ne dafay ànd ak léeg-léeg seere euh, léeg-léeg biir buy daw boobu dina ànd ak dret di ngay am ay crampe abdominale maam métit bi yoo xam dafa mel dañu lay jam sa biir métit bu tar lay doon dinay tax nit ki di am tàngoor yaram muy fièvre température ko yaramam day yéeg dina tax nit ki aussi di am li ñuy wax ay poussée muy tawat boo xamante ni danay jeexloo nit aussi boo ko amee nay indi jeex di dem ba vraiment ku la gis ne la yow la daal kon yooyu dañuy indi même ay cramp dañuy indi fatigue taayalu yaram dañu bokk ñaari problème yooyu mais li leen wutale mooy ñaari feebar yi mooy su dee lii ñuy wax malade de coron bi ñu koy wax la colite inflammatoire mën na jàpp fépp si tube digestif bi li ko dale si gémmiñ gi ba si butit bi mën na jàpp fu nekk or que bu fekkee li ñuy wax rectal hémorragique bi la ñu koy wax la colite ulcéreuse hémorragique kooku colon bi rek muy butit bu mag bi bu dijj bi moom lay moom lay jàpp partie butit boobu à part trait de distinction boobu lycée bi dañ ko xaw a nuróole muy tawat bu doy nag ndax te dafa nekk loo xamante ni boo ko fajul dina indi anémie si lu gaaw ndax deret boobu ngay perdre moo tax di nga manqué deret lu bari di nga anémie di nga néew doole di nga néew kattan mën na dem ba jàpp say yax boo ko fajul mën na dem ba attaqué sa der sa deru yaram kon nekk na tawat boo xamante ni lu doy waar day jàpp ay bët aussi muy feebar boo xamante ni dafa dafa dafa yéeme ñu bëri na dañu yaakaar ne bariwul fii si Afrique mais am na fi seulement nit ñi dañ ko dul teel a xam ndax da ngay ñëw la jàngoro kayoor nga muy hémorroïde ngay faj hémorroïde yëf yi gën a takarnaase fekk boo dajul la ko am expérience dëgg mu def loolu yi nga war a def rek duñu xam exactement duñu mën a jafe-jafe kon baax na saa yoo dee am biir buy daw buy ànd ak deret nga bañ ne hémorroïde rek rek surtout bu yàggee si yow dem ba def ay semaine si yow mu ànd ak biir buy jam di metti ànd ak coono ak fatiguement ànd ak aussi bët yu dem bay sa gis-gis dootul leer léeg-léeg mu jàpp sa der war nga dem ñu seet la ndax du lii ñu ragal muy malade de couronne bi kon loolu lu mat xam la solution yi nag bari na muy si côté nasaraan bi ak si côté cosaan bi bari ay solution mais bu ñëwee si bi nga xam ni ñun moom la ñu faral di joxe muy fajum cosaan mi bari na ay tegtal bi si njëkk mooy jinjeer jinjar bi si kàttanu yàlla boo amee bu toll nii wala ñaari toll nii mën nga ko écraser wala nga gratter ko def ko si litre ndox su ko defee di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boole si kàttanu yàlla soo amee lem mën nga ko boole leen boo xelee genn wàll kaas da ngay jël kuddu lem nga suukare ko naan si kàttanu yàlla yàlla mën a dimbali nga oyofal yaram bi soble baax na ki ko ki mu daal mu koy jël ndax soble dafa am li ñuy wax kersin na mi ëpp si xobu soble xob bii si kaw booy togg soble bi da nga koy toggaale bu leen ne nga ko ba mu sew nga koy togg feje ko ba ko si litre ndox bàyyi ko si lu mat waxtu nga segg ko di ko jël par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boo si kàttanu yàlla lu baax si recto hémorragique boobu euh, c'est malade de Crohn bi la donc malade de Crohn boo xam ne mën nga utiliser jinjeer bi ak soble bi am na loo xam da nga ko war a moytu si sa lekk muy di jël lu bari meew ak yenn céréales yi parce que meew mi dafa dafay yokk bu fekkee na nga am surtout incontinence au lactose dafa am lactose lactose boobu boo amee feebar bi doo ko supporter boo ko amee dafay indi yokk biir yeeg gaz yeeg biir bi daw beeg yooyu da nga koy éviter boo amee tawat bi ñu wax la malade de Crohn moo muy la colite inflammatoire da ngay wàññi aussi céréales yi nga xam ne dañoo am euh, gluten muy sungu fi dugub jeeg kongo saane beeg bësi beeg mboq mi da koy xaw éviter ak farine bi sa ceeb nag mën nga ko consommer ndax si céréales yi ceeb rek moo si amul gluten moo tax gars yi dañuy juum léeg-léeg léeg nga am sax colopathie fonctionnelle wala nga am hémorroïde ñu ne bàyyil ceeb or que ceeb bi na ñor rek lii bon mooy bu bañ a ñor su ñoree amul benn problème ki am colopathie mën na lekk ceeb nu mu ko bëggee mën na lekk ndax amul loolu yu ñuy wax gluten mi nga am si farine yi en général la ëpp wala si yeneen produit kon loolu mat na mat na xam am na benn cocktail de fruits aussi bu ñu leen di dégal souvent moy da ngay jël ñaari orange bo amé orange bi ñaar am ben ben banana bolé ko xaju papaya xaju ananas ak xaju mango nga def ko ben cocktail de fruits diko jël ci katanu yalla daf lay dimbalé ci gérer maladie bi ndax la mayan nga am li nga soxla ci ay ferñent muy calcium magnésium phosphore manganèse chrome ak yépp ak cuivre da koy am am li nga soxla si ay vitamines aussi su ko defee dafa lay dimbali ba nga mën di résister te dina la aider aussi ba sa digestion gën a gën a yomb kon boo amee colite ulcéreuse bi na nga essayé yooyu euh, beneen solution bi mooy boo amee li ñuy wax menthe poivrée mooy garab ngeen di seen nii menthe poivrée ñu dagg si benn mi ngi nii la menthe poivrée mu ngi nii boo ko fóonee xetu xetu naanaa la lay jox mais lu am solo la feebar da nga koy def infusion boo amee lu toll ak sa ngëmbu loxo rek tàngal litre ndox bu tàng sotti ko si bàyyi ba mu sedd nga seg ko di ko am par genn wàllu kaas boo ndekkee boo añee boo si kàttanu yàlla yàlla na la dimbali nga mën a mucc si tawat bi ñuy wax malade de Crohn wala euh, la colite inflammatoire moom ngeen di gis mooy garab gi ngeen gis nii soo amul te nga am aussi xobu papaye mu ngi nii soo amee xobu papaye bii mën nga si jël rek ñaari xob. boo jëlee ñaari baax na boo jëlee ñaari car yi rek parce que li yëpp xob bi la mais boo jëlee ñaari car yi rek baax na mën nga ko def li ñuy wax infusion maanaam tàngal litre ndox bu tàng si un litre d'eau nga def ko si daggate xob bi ba mu sew pour mu gën a a trempé wu nga koy naan di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee wala si kàttanu yàlla boo ko dee jël dara gënu ko gaaw si gérer feebar bi kon loolu di solution bu am bu am solo su ñëwee si question yi nga moom la ñu indi tey kii daf ni question bu njëkk bi nañ ko rappeler sungu fi ñi nga xam ne dañu bëgg am dënn seen poitrine génn mooy ay ween yu dëgër yu consistant yu génn aussi yu taxaw ak ñi nga xam ne dañu bëgg am hanche ak fes rappel rek comme nit ñi dañ ko soxla di ko vraiment laaj à tout moment dañ siy ñëwaat bu dee wàllu poitrine bi la muy dënn bi boo bëggee mu génn mën a génn da ngay wut sungufu fenugrec su ko defee boo tibbee lu tollook kudd bu ndaw bi nga jël si huile de nigel bi kudd bu ndaw nga mélanger moom ngay maase ween yi booy na ngay appuyer si ween pour mën dugg du en même temps parallèlement nga jël benn kudd bu mag nga baxal ko si lu tolloog un litre d'eau di ko jël par kaasu ataaya matin bi soir da nga koy naan aussi en même temps di ko di ko maase woo pour effet bi a ñëw bu dee wàllu fees la ak mu ñu bëgg am ginnaaw ñooñu dañuy jël sungufu fenugrec boobu boole ko sungufu wen ak sungufu ngaw su ko defee bu ñu ko jaxasee ba noppi booy ruy da ngay tibb kudd ñuy añee ba mu raase nga def ko si litre ndox bu tàng bàyyi ba mu seet nga segg ko ndox boobu ngay utiliser pour ruy moom ngay def si teg si def ko sa casserole teg ko si taal bi su baxee nga wut su nga fa ba suuna bi genn wàll kaas nga xoyal te it nga bañ si maye parce que aussi bu fekkee da nga bëgg a faju ko séddoog ñeneen bi na ko wutali boppam boo bëggee daal lii nga soxla si ruy bi nga am ko li ñu la jógal ni quantité bu da nga ko jël da yàlla boo ko defee di am li nga bëgg ndax ban la ñoo xam tey ñëw nañ ne ma daal vraiment bañ ko commencé jël ba léegi ku ñu romb dañu naan naan lu ngeen di jël temps yi ndax am nañ kanam am nañ ginnaaw ñaareel bi mooy kii day laaj euh, mot de dent mooy maanaam ba bañ lu koy saafara bari na boo amee jar dara gën ko wala xorompole xorompole bi da ngay cof rek ja cof si jar bi jaxase leen tàngal ko ba mu baax nga koy def benn de si tàngooru noonu nga koy lok si gémmiñ ba mu ba mu ba mu sedd si si kàttanu yàlla boo ko def te nga wut aussi xasum sump boo xasee xa amee xas mi da ngay tibb sa loxo ba mu fees nga baxal ko si liis ndox di di ko suuroo di ŋaa sa gémmiñ vapeur di si dugg boo paree nga jël lool na di ko def bain de bouche di ko def lokk sa gémmiñ mu sedd si gémmiñ si kàttanu yàlla boo ko yàggee da ngay dem ba say bëñ dafay dee ñu leen tàggu fi ñu jox naan seen émission